بسم الله وعلى ملة رسوله ومن هدي القدير njaboot gi lay wax ci ñu jëm ci passeport diplomatique yi indi leen bu bu am solo passeport diplomatique ku ko war am ak ku ko warta am te bu ñu seetloo din kan sama njaboot tax may wax ñi nga xam li bëgg tax diplomatique ak ñi ko amoon ci sama njaboot ba noppi dañoo tax may wax waaw waaye nag damay wax li nga xamante bi moo nekk ci ma li nga xam ne képp ku dégg bëgg dégg xam ne li ma wax noonu la tudde accord diplomatique bi ñi nga xamante ni bi ci diplomatie bi ñuy liggéey eh, jàpp naa ne même ñi nga xam ne ay administrateur sax ñi nga xamante ni bi ci ngóor li ñuy liggéey ku ci nekkul diplomate passeport de service nga daan am danañ yàgg xam dëgg la président Diouf moom moo fi tax di jox ay sëriñ ay passeport diplomatique ak yu dina bi Abdoulaye Wade ñëwee di ko renouveler di Macky ñëwee kan, noonu waaye nag dem dafa bari ba nga xamante bi réew yi ci des suñu réew suñuy même réew yi dootu ñu ñu ci naw alin wi wax dëgg yàlla lu état sénégalais ak chef d'état bi ñu bëgg bëgg bëgg bëgg lu baax wax dëgg yàlla tax diplomatique yi moom du waaw du du du du dafa war a late waaw ndax itam fekkee dëgg rek nag la ñuy wax mag sa umar ma ci am nag man abdou diouf nag moom ko njëkkoon a jox yàgg na waaw waddi ablaye waddi di ko ma makki non di ko sama njaboot te am na ci ay benn benn yu ko am waaye benn benn yi ko am yépp bu renouvelé jotee bay bo ñun nangu yépp parce que waaw ku ci bëgg tukki dem ku ci visa wala yu demee na xanaa rek tey li ñuy ñaan chef d'état bi ñu fexe ba réew yi nga xamante ne bi ñoom ñoom la ñu ko sëkkal diplomatiquement nga xam ni ñoom seen i citoyen bu ñu bëggee visa Sénégal di leen di yomb ñoom président Macky fexe ba itam bu réew yi itam bu ñu soxlaa visa ci seen réew euh, man ko am waaw waaye nag passeport diplomatique yi moom waaw ñëpp ko ci war a dimbali fi mu toll nii waaw ñëpp ko ci war a dimbali parce que daa daa am yenn yu cee sew yoo xam ne yeneen bi di am yu cee wax ak yu gën a mën te fi toll ku ko bëgg a jàppale daal mu ngay fexe mandaam bi waaw bi lépp loo xamante ne bii lu koy gàkkal la wala lu koy tilimal waaw ñëpp ci war a jàpp daal ku moom nekkul ci an may wax rek li nga xam ne di càggee na maanaam estime bu ma am ci moom wala nanga ma ki nangam déedéet réussite am mooy réussite seen citoyen yëpp ñuy fexe ba mandat bi mu réussir ko rek ci boor yi ñu nag li féete ci ñun ñoom ci war passeport diplomatique moom ku ci renouvelé dinañ ko nangu waaw kooku moom loolu nag lu ma ànd la ndax itam waaw dëgg bu ñëwee dañu koy wax nag wax dëgg yàlla woo ma ñeneen ñi de man sama njaboot laa wax ni ko ci am waaw renouvelé jëf nañ ko téye ku ci bëgg a tukki danañ ci visa waaw loolu moom leer na nañ loolu ci man de ci soutien bi koy defal la bokk lii ndax damay bëgg lépp loo xamante ne man naa ko ne woon dama lay soutenir à cent te loolu ci laa nekk te du ci jóg li ma ko jaral moom ma koy jaral rek waaw <laughs> sama njaboot laa koy adressé nag bu ñoom ñëpp ñu dégg ko bu ci kenn dem di renouveler passeport diplomatique defe ni dina ci jot wala yu gëm waaw lépp loo xam ne mooy taxal liggéeyam daal loolu dañ ci ànd ak moom waaw loolu gi laa koy